مولانا أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين أما بعد جلنا بن سنت يالله جولي سي النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نون بتاي كتاب مواقيت الصلاة بصحيح الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمه الله ورضوانه الباري ci bii jotaay bi weesu gisoon nañ ci baabu taxiiru zuhri ila ila asr bunt bi nga xamante ne mooy wax ci yéexi bi xam ne moom lañu mën a yéexi ci baar jëme ko ci tàkkusaan waxoon nañ wuute yi boroom xam-xam yi wuute rahmatullah alayhim ci boobu masala ak yi nga xamante ne moom mooy waxu maalikiyee ak saafiiyee rahmatullahi alayhim ak wuute gi ñu wuute ci mbir moomu ak ñeneen ñi ak ñu wuute gi ñu wuute ak ñi ci def rahimallahu al gisoon nañu ci wuute tamit yi borom xam-xam yi wuute ci xadis bi nga xamante ne moom lañ ci gisoon muy xadis sayidna abdullah ibn abbas radiyallahu taala anhuma bi nga xam ne dafa doon wax ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam na anna nabiyya sallallahu alayhi sallallahu alayhi wa sallam salla bil madinati samaaniya sab'an wa samaaniya az-zuhra wal asr wal maghrib wal isha maanaam ne yonent bi sallallahu alayhi wa julli na ci madinatul munawwara ala saakine afdalu salaatu wassalaam juróom-ñaari rakka ak juróom-ñetti rakka maanaam mu daldi boole ci juróom-ñetti rakka yi ci tisbaar ak takkusaan ci juróom-ñaari rakka yi muy timis ak gée mu boole leen julleendoo te loolu noonu ñu ko defoon maanaam ci gisoon nañu wuute yi nga xam ne moom la borom xam-xam yu wuute rahmatullahi alayhim ci ndax dañuy jàpp baay wax xadis bi wala boog duñ ko wala boog wuute nga xam ne moom lañ moom lañ ci moom lañ ci borom xam-xam am rahmatullah alayhi imam al-Bukhari rahimahullah ni nga xamante ne noonu la ko gisee mooy ni nga xam ne moom la ko jumhur gisee rahimahumullahu te moom suuri la maanaam boole la boo xamante ne bu wala melo la waaye loolu tamit borom xam-xam yi rahmatullah alayhi ñëpp ànduñu ci comme ni nga xam ne noonu lañ leeraloo li wutee ak teqantal yi nga xamante ne ñoom ñoo ci am ci suñ jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ ci baabul waqtul asr maanaam bunt bi nga xamante ne léegi nag moom mooy wax di leeral di tàmbali di wax ci wàllu waxtu takkusaan gisoon nañ ci xadiis sayyidina sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala anha bi nga xamante ne dafa ne kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yusalli al asra wa shamsu lam taxruj min xujratiha maanaam ci <coughs> riwaaya Anas ibn Iyaad rahimahullahu taala bu jëlee ci Hishaam ibn Urwa ibn Zubayr ibn Awaam mu jële ko ci baayam Seydina Urwa ibn Awaam mu jële ko ci eh, tantam Sayyidat Aisha radiyallahu taala an al mu wax ne Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa julli sa takkusaan te fekk jant bi génn tudd woon ci biir néegam manam mu daal di waaye mu wax ne ci taaliq bi mun mu daal wax ne qaala abu usama an hisam min qa'ri hujratiha manam ne abu usama te moom mooy hamad ibn usama ibn zayd al-qurashi al-laythi rahimahullah moom mu ngi koy waxe moom moom mu ngi ko jële ci hisam ibn urwa ibn zubayr ibn al-awwam maanaam moom riwaaya min qa'ri hujratiha la wax manam ci manam li nga xamantene mom moy mooy digg néegam manam ci ëpp néegam bi manam ay génn bu jant bu génn bu ci woon gisoon nañ ci batay ci hadith bobu benen hadith bi nga xamantene mo moo moo ci imam ibnu ibnu Shihab az-Zuhri manam bële maanaam Hisham ibnu Urwa moko solo jële ci Urwa ibn Zubayr fi nak ibnu Hisham ibnu Shihab az-Zuhri moko ko jële ci Urwa ibn Zubayr ñu mu jële ko ci Aisha radiyallahu ta'ala anha من ينتجون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر والشمس في حجرتها لم يظهر شيء من حجرتها maanaam mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa doon julli takkusaan fekk jant bi mu ngi ci biir nee gëm te feeñu gu maanaam takk ndeeram gi nekk gut loo xamante ne dafa muur li nga xamante ne moom mooy néegam bi loolu gisoon nañ ko ak gisoon nañu maanaam boobu ba tey xadis boobu ba tey indiwaat na ko ci riwaayat imam az-Zuhri waaye bi ñu weesu imam al-Layth ibn Sa'd ci la ko jëlee rahimahullah léegi nag mu ngi koy solowee ci beneen imam muy al imam ibn Uyayna rahimahullah mu jële ko ci imam az-Zuhri mu jële ko ci imam Sayyidina Urwa ibn Zubayr ibn Awwam mu jële ko ci Sayyidina Aisha radiyallahu ta'ala anha al-jami' maanaam te noonu noonu la ko tamit imaamu Malik tamit solowee jële ko ci imam az-Zuhri ak Yahya ibn Sa'id al-Ansari itam noonu la ko solowee ak Shu'ayb ak Muhammad ibn Abi Hafsa ñoom ñëpp ñoom ñu solo xadis bi nga xam ne madaarul xadis maanaam moom mooy al imam Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhuma ñu jële ko sayyidat Aisha radiyallahu anha mu ne kaana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yusalli salata al-'asr wa shamsu tali'atun fi hujratihi mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon na julli ci takkusaan fekk jant bi mi ngi fenk ci sama biir néeg bi maanaam mu ne lam yosar fay u baaxlu nga xamante ne ker gi muuragul ba tey maanaam dellu seegul ba muur néeg bi ba tey maanaam loolu ci riwaaya yi nga xam ne moom mooy yu mujj yi yi ñu tuddee te mooy bu imam Maalik wa Yahya ibn Sa'id al ansar al ansari ak Shu'ayb ibn Abi Hamza ak euh, Muhammad ibn Abi Hafsa ñoom ñëpp dañoo wax ne washamtu qabla an qabla an tazhar te fekk jant bi maanaam mi ngi ci néeg laata muy de maanaam muy dem ba ba ba di dal maanaam di di di feeñ feeñ googu nag muy te muy li muy tekki moom mooy takk ndeer bi dem maanaam ba muur néeg bi comme ni nga xamante ne noonu lañ ko leerale woon ci suñu jotaay bi weesu walhamdulillah gisoon nañ tamit xadis bi nga xamante ne moom mooy xadis sayidna abu bardat al aslami radiallahu taala anhu bi nga xamante ne sayyaar ibn salaama rahimahullah moom moo ko nekkal ne moom ak baayam mooy asalaama ñoom ñoo àndoon ñu gis ñu gis abu bardat al aslami radiallahu taala anhu ca basra mu ne leen ñu laaj ko ne ko naka la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon jullee li nga xamante ne moom mooy waxtu yi nga xamante ne ñoom ñooy farata mu daal di koy benn bu ci nekk na mu ko daan jullee waaye mu yëgtee ci tàkkusaan daf ne wa yusallil asra summa yarji'u ahaduna ilaa rahlihi fii aqsal madinati wa shamsu hayya li nga xamante ne moom la daan julli ci tàkkusaan moom daf daan nee na kenn ci ba noppi kenn ci ñun dana dellu ci jóge ca ay war waayam ca ay war waayam fa gën a sori ca madina fekk jant bi mi ngi mi ngi yeggale maanaam mi ngi nekk ba tey di eh, di di dund di tàkk loolu eh, xadis boobu eh, moom mooy xadis bi nga xamante ne moom la ñu mujjee gis ànd ak maanaam lay wax bi nga xamante ne moom la ñu maanaam xadis bi dafa wax fii nga xamante ne ñoom ñooy julli juróomi julli yëpp ni nga xamante ne noonu la ko yeneen bi doon jullee sallallahu alayhi wa alihi wa sallam من قال بالإسناد المتصل في أول كتاب إليه حدثنا ما لم ngi ba tey من قال بالإسناد المتصل في أول كتاب إليه حدثنا عبد الله بن مسلمة ثم عبد الله بن مسلمة بن القعنب القعنبي رحمه الله تعالى من أبو عبد الرحمن بن مدينة المنور على فاكرها أفضل الصلاة والسلام nekk taalibu imaamu Maalik rahimahullahu taala borom ci sabu fi boobu comme ni nga xamante ne noonu lañ ko leerale woon moom mooy imaam bu mag boobu rahimahullahu taala dégg yi nga xam ne moom la imaam Maalik doo tuddee woon ci gën ci nit ñi ci suñu jamono ñu génn àdduna deux cent vingtième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom Abdullah ibn Maslama te moom al Buxaari moom Muslim moom Abu Daawud ñoom ñoo solo ci moom mu nekk seen ay sëriñ imam at-Tirmidhi ak imam an-Nasa'i dañoo solo ci ko solo wee ci moom kon dina gis ne waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ay xadiisam ba mu des al imam ibnu Maaja al-Qazwini rahmatullahi ala al-jamii mu ne qaala mu ne an Maalik te moom mooy imaamu daarul hijra imaamu Maalik ibn Anas ibn Maalik ibn Abi Aamir ibn Amr ibn al-Haaris ibn Ghaymaan al-Himyari rahimahullahu ta'ala mi nga xamante ne mu Abu Abdullah al-Madani moom waa madinatul munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam nga xamante na fa la gane adduna foofu la màggee foofu la jàngee foofu la tasee ak sëriñam yi mm. lu ci ëpp maanaam bu amee keneen ku mu tasal ci jamonoy at la tasee ak moom te génnul boo xam maanaam imaamu Maalik rahimahullahu taala wóorul demul fenn moom foofu la borom bi wa taala moo ko baaxee loolu moo ko jariñee loolu terewul mu doon ki nga xamante ne moom la doon muy imaam waa adduna bi rahimahullahu rahmatan waasi'a hmm. mi ngi génn gane adduna quatre-vingt-treize jàpp quatre-vingt-quatorzième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi génn adduna cent soixante-dix-neuvième année ginnaaw gàddaay bi sallallahu di imam moom ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha u maliki rahmatullahi alayhim mu boole woon ci mu boole woon xam-xam bu sell ni ko noonu di ah, jàng xam xadis yi xadis yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam naka noonu noonu la boole woon jàng alquran ci imaamu Naafi' naka noonu noonu la jàngee tamit alquran maanaam noonu la jàngee noonu la nekkee tamit borom teggin yu mag comme li nga xamante ne noonu la ko jàngee woon ci Rabi' ibn Abi Abdurrahman ak imam Ibn Hurmuz mu jàng ci ñoom mu jàng tamit maanaam mu nekk koo xamante ne dafa am suubu yoonu nit yàlla yi ci loxoy imam Jaafar as-Sadiq radiyallahu ta'ala anil jami' mu من الحديث من يجي كتب الستة من عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة ممتد ومدينة المنورة على ساكن أفضل الصلاة والسلام أبو يحيى المدني رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى أبو طلحة رحمه الله مموي سهل بن زيد الأنصاري رحمه الله مموي باي جيل سيدنا أنس ابن مالك رضي الله تعالى عن الإمام زيد أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري رضي الله تعالى عنه رحمه باي جلتي سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عن الجميع مؤمن جن أدنى سعطرا كم أنا جنا قد ينتبه صلى الله عليه وآله وسلم أي حديثا نيجي تكتب بسيطة من عن أنس بن مالك موي أنس بن مالك ابن النضر بن الضمضم

amna 2286 hadith lol mom moy musnadam rahmo radiyallahu taala anhu fi nga xamante muttafaqun alayhi muttafaqun alayhi cent quatre-vingts la nga imam al-Bukhari weto na quatre-vingts xadis imam Muslim wéetoo hadith dix xadis ci xadis sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu taala anhu moom tamit ay ñu ngi ci kutubu sitta kon boobaa dañuy gis ne ñi nga xamante bi hadith bi bokk na ci rubaa'iyaatu imam al-Bukhari rahimahullah manam ñent nit rek ñom ñoo dox ci digganteem ak yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam te ñom ñëpp ñi nga xamantene ñom ñoo ci nekk wa madinatu munawwara ala sakinah afdalu salatu wassalam hadith bi mu imam sayyidina anas ibn malik radiyallahu taala anhu man hadith la bo xamantene mawquf la insha allah taala dinañu gis li nga xamantene mom mo ci aju ci walu atte atte bi nga xamantene mom mo moo nekk ci hadith bi mu nekk mu nekk qaala annahu qaala nee na kunna nekkoon nañu nusalli di julli al asra tàkkusaan summa topp yaxruju mu génn al insaanu nit maanaam nit ki ilaa bani amr ibn awf dem ca waa bani amr ibn awf te moom mooy fële ca al aliya ca madinatul maanaam na foofu la nekk ñoom waa bani amr ibn awf foofu lañ nekk ca xubaa ci moom lañ ci ci dafa bokk ci fi ñuy wax al awaali ci madinatul munawwara koñ yooyu ñu naan al awaali maanaam euh, euh, daf cee bokk maanaam masjidu xubaa maanaam fi nga xam ne foofu la nekk mooy waa Banu Amr ibn Awf rahmatullahi radiyallahu ta'ala anhum mu ne ñooñu da daan dem ba foofu fa najiduhum ñu fekk leen ñoom ñu salluuna ñuy julli al asra tàkkusaan maanaam li nga xamante ne moom la xadis bii di wax di leeral mooy ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf daan teel a julli tàkkusaan ndax moo tax moom bu daan julli tàkkusaan nit ki dina dox lu tollook ñeenti mayil te ñeenti mayil euh, da nga gis maanaam loolu lay jege maanaam te ànd ak loolu yëpp dangay nit ki dem ba foofa dox lu tollu noonu dem fekk ñooñu di doog a commencé ñoom bi julli tàkkusaan maanaam loolu day tegtalee man maanaam ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam doon teel a jullee te loolu day dëgëral mazhab jumhurul ulama rahmatullahi alayhim ci ne maanaam euh, iza sara zullu kullu shay'in mithlu maanaam ne bu fekkente rek keroog mbir mu nekk dafa nuroog dafa tolloog mbiram maanaam dafa tolloog jëmm mbir mooma maanaam te lool mooy buñ ko yokkee zillu zawal maanaam mooy keroog eh, keroog jéngu jant bi loolu moom mooy ne ci tàkkusaan foofu lay tàmbalee te loolu day dëgëral ne julli ci waxtu wi nga xam te ne moom mooy njàlbéenu waxtu wi loolu moom mooy li gën ndax li yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallama saxoo maanaam ak di ko def ak baaxoo ko mu nekk baaxam maanaam mu ëpp li nga xamante ne moom lay def daa iman loolu moom mooy li nga xamante ne moom moo gën ala kulli maanaam te loolu beneen bi ci des beneen mbir mi nga xamante ne moom lay leeral moom mooy ne dana dagal nit ñi yéexee julli bi maanaam waaye nag bu mu bañ a génn waxtu su fekkente ne ñoom dañoo déggoo ci mbir moomu li nga xamante ne moom la ñu waa jàkka jooju déggoo mooy ne ñun tàkkusaan heure bii lañ koy julli maanaam tey bu fekkente ne tàkkusaan dafa dugg masalan seize heures et maanaam du ne jàkk yëpp dañoo obligé ñuy nodd seize heures et maanaam ñii mën nañoo julli seize heures et demi ñenn ñi julli dix-sept heures demi ñenn ñi dem ba dix-sept ba ba ba ba dix-sept heures ñenn ñi julli dix-sept demi ñenn ñi julli ba ay dix-huit maanaam ala kulli xaalim fekk ñi ngi ci biir muxtaar bi te ñu mën am maanaam waxtu jamono joo xam ne daañ ci mën a jullee loolu moom maanaam mën naa nekk am ak ne ñoom ñëpp ñoo bokk dëkk bi nga xamante ne moom la ñu nekk loolu maanaam loolu la xadis bi tamit di leeral ndax yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam xamoon na ko ak xadis bi maanaam mu naan ñun naa naf'alu ñun daan nañ def lii maanaam ci jamono yenente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu wala même bu fekkente ne boolewuñ ko ci waaye li leer mooy jamono ji jamono yenente la woon sallallahu alayhi wa sallam maanaam loolu bu ko ku bu ko ab maanaam saxaab yi waxee da loolu atte bi nga xamante ne moom la am moom mooy atte euh, loo xamante ne dañ ko yëkkati ba ci yenente sallallahu alayhi Euh, wa alihi euh, wa sallam te loolu moom mooy li nga xamante ne euh, moom la al imam al imam al xaakim rahimahullahu taala moom dafa jàpp ne loolu marfuu la amma imam al xatib al baghdadi ak moom ad-Daaraqutni ak ñu mel ni ñoom rahmatullahi alayhim ñoom dañoo jàpp ne mawquuf la waaye li nga xamante ne moom la boroom xam-xam yi saxal ci biir moomu te moom mooy ñu mujj ñu ko mel ne al imam abu amr ibn salah ak ki nga xamante ne moom mooy imam alxaafis al iraqi imam alxaafis ibn xajar al asqalaani imam as-suyuti ak ñeneen rahimallahu aljamii ñoom ñëpp dañoo jàpp ne loolu buñ ko waxee li muy tekki moom mooy ne mawquuf la waaye dañ naan mawquufun lahu hukmu rafa maanaam mawquufun lahu hukmu rafa maanaam mooy luñ taxaw ci ab saxaaba atte maanaam mawquuf la ñuy wax waaye atte bi mu am mooy àtteeg loo xamante ne dañ koo askanale yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mm-hmm. ngir ne li nga xamante ne moom la doon def maanaam euh, mooy ne ñoom julli googu ñu doon julli dañ ko doon julli ci ànd ak yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wala boog ñu def ko fekk ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam xam na ko ci kaw loolu kon boobaa dinañ gis ne ñaari atte am nañ ci xadis bi te ñaari atte yooyu yëpp yenente bi sallallahu alayhi wa sallam xamoon na ko benn bi moom ci boppam moom moo ko doon def te moom mooy teel a julli googu bi ci def moom mooy waa banu amr ibn awf fële ca waa masjidu quba ñoom ñoo ko doon def te loolu mom moy ne dañ doon yéxé julli waxtu wi wayé nak loolu ñu won jënn muxtar bi amon nañ ñu ko doon def ci biir muxtar bi loolu lay tek tegtale ne kon loolu dagal na man naa ne wallahu taala alam hadith bi imam al-Bukhari fi rek nako indi imam muslim indi nako hadith numéro 621 wayé ñom et un ñëpp ñu ko jëlé ci imam Malik comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisé légui mo nek hadith numéro 10 ci ci Muwatta bi imam Malik may gis ne kon wa asxaabu kutubu sita ñi nga xamantene ñom ñoom ñooy as maanaam ñoom ñooy as-shaykhaani mooy borom ñaari saxeexe ñom rek ñom ñoo indi hadith bi rahmatullahi ala al jami' la qala bil isnad muttasil fi awal kitab la haddathana ibn muqatil te moy al imam Muhammad ibn muqatil al-Marwazi rahimahullahu ta'ala moy Abul Hasan al-Marwazi al-Kisaa'i nekk koo xamante ne Marwazi la sax mu nekk Bagdaadi ginnaaw ga mu dem Makka comme ni nga xamante ne noonu lañ ko waxee wante ci génn amu génn àdduna ci yoon wi moom mi ngi génn àdduna deux cent vingt-sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom xadiisam imam al-Bukhari rek moom moo ko soloo rahimahullahu ta'ala ay xadiisam ñi ngi ci kutubu wala maanaam imam al-Bukhari rek moom moo ko آه، صلى آه، رحمه الله تعالى Euh, mu nekk mu ne qaala axbarana abdullah te mooy ibnul mubarak bi nga xamante ne moom daa iman wala lu ëpp bokk solowee xadis ci abdullah ibnul mubarak lay solowee ci moom mi ngi génn àdduna cent dix-huitième année ginnaaw bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi génn àdduna cent quatre-vingt-unième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dakantaam nekk abu abdurrahman bi waa قال من أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف من أبو بكر الأنصاري الأوفي من هو مدينة منورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام كتاب تابعي لبك رحمه الله تعالى آه، دي آه، آه، صحابة الصحابة بن محمد بن سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه manam mom moy kon mom mom tamit ay ay haditham ñu ngi ci kutubu sita mu ne xaala nee na samet dégg na dégg naa aba umama moy mamam bi nga xamantene ne ci moom mooy ma maamam muy asad ibn sahal ibn xunayf bi nga xamantene ne moom la mom mom moom la solo ci mom muy wala bok bayam maanaam muy ba baayam ab mooy Aboubacar ndax moom mooy Aboubacar ibnu Ousmane ibnu Sahl ibnu Hunayf mu solo ci baay taxam bi nga xam ne mooy As'ad ibnu Sahl ibnu Hunayf voilà mom ñom seen mam moy muy mom moom bakkar bobu mamam radiyallahu taala hu sahaba la bu mag Abu umama tamit sahaba la waye sahaba la bo xamantene manam dafa dafa deggi deggi déggiwul dara ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga xamantene sahaba la ci àtte ci àtte sahaba manam ne sahaba la manam yor na ngëneel yi ci nek yep waye bu ñewé ci walu riwaya maanaam moom moom ci taabi'i yi lañ koy boole ci wàllu riwaaya ngir ne mi ngi gën a àdduna juróom-ñetteelu at ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yenente bi sallallahu wa sallam moo ko tudd moo ko taxnik moo ko barkeel waaye moom mi ngi génn àdduna tamit ci téeméeréelu at te mboolem borom xam a dëppoo nañ ci lool ne téeméeréelu at la génn àdduna ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ay xadiisam euh, euh, euh, ñu ngi ci kutubu sitta waaye bëriwul ay xadis mu ne yaqulu nee na sallaynaa julli nañ ma amr ibn omar ibn abdul aziz maanaam muy sayyidna omar ibn abdul aziz bi nga xamante ne moom nañ ko radiyallahu ta'ala anhu nga xamantene mi ngi génn àdduna 60 unième année ginnaw gadda yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna cent unième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw bi nga xamantene mom ci ñaarelu at bi nga xamantene la nekkon ci nguuram ci nek khilafam ci la génn àdduna mm-hmm. euh, muy am 40 ans radiyallahu ta'ala anhu di imam bu mag boobu radiyallahu anhu moom mu ne julli nañ ak moom az-zuhra tisbaar maanaam summa topp xaraj naa ñu daal génn xatta mbete daxal naa ñu dugg ala anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu gis nañ ko léegi ñu dem dugg ji ko mu ne fa wajadnaahu ñu fekk ko yusalli muy julli al asra takkusaan mm-hmm. fa qultu ma ne ko yaa amma e yow sama bay maanaam bay taxam la ko tuddee ngir ne maanaam moom moo ko mag ci at maanaam tax maanaam mooy ko ndax mat ko bàyyi daal mm-hmm. loolu moom moo tax mu woowee ko noonu mm-hmm. nit noonu tamit ñoom ñëpp ay ansaar yi lañ mm-hmm. loolu moom mu maanaam loolu tamit beneen mbir la mu ne ko maa haadihi salaat maa ana lan mooy haadihi salaatu bi la julli allati bi nga ne sallayta yaa ngi koy julli waaw julli gi julli mu doon mu ne ko al asru tàkkusaan maanaam eh, loolu day tegtale ne ku Seydina Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu taala anhu da daan julli tisbaar maanaam naka noonu noonu la julli tàkkusaan ba tax ba al imam Urwa ibn Zubayr radiyallahu taala anhu doon Euh, doon ko dabaatal di ko leeral li nga xamante ne moom mooy julli yi naka lay demee ak it waxtu yi nga xamante ne moom mooy waxtu yu gën ci julli mu leeralal ko ko noonu comme li nga xam ne noonu la nekkee ci xadiisu imaamatu Jibril alayhi salaatu wassalaam maanaam kon xadiis bi doon tamit dañ ko ciy jànge bokk na ci li nga xamante ne tamit moom lañ ciy xamee moom mooy ne kon saxaaba yi mooy radiyallahu taala anhum ñoom teggiwuñu woon seen tànk mukk ci li leen yeneen moom moo tax Seydina Anas radiyallahu anhu dafa julli ci ci tisbaar maanaam dafa julli tàkkusaan waaye ñoom biñ ñëwee dañoo foogoon ne xanaa tisbaar la war a doon moo tax ñu laaj ko lii lan la ban julli la loolu tamit dafay dëgëral li nga xamante ne moom la fuqaha u maliki yi di wax rahmatullahi alayhim ne tisbaar ak tàkkusaan dañuy dugalante maanaam am na benn jamono yoo xamante ne dañuy dugalante lool moom moo tax moom mu foog ne moom ànd ak moo nag mu euh, boobu euh, julli tis julli tisbaar tamit mën naa nekkee lool waaye tamit loolu dafa fekk ne comme ni nga xam ne moom la Seydina Anas wax radiyallahu taala anhu bi mu doon wax naan xàmmeetuma dara ci li ñu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi woon ba mu def julli ba pare daan ne te julli mi ngi nii gis ngeen dayyakum ah maanaam neenal ngeen ko maanaam mooy doyal ngeen ko ci waxtu wi maanaam loolu tax mu ne wa haadihi mu ne ko leeral mu ne ko tàkkusaan laa julli de wa haadihi ci lii salaatu rasulillahi muy julli ndawal yàlla li sallallahu allati bi nga xam ne kun naa nekkoon nañ nu salli daan ko julli maahu di ànd ak moom loolu yëpp nag day dëgëral mazhab ñi nga xam ne moom mooy jumhurul ulama yi rahmatullahi alayhim mm. wax bi nga xamante ne moom la wax ne tisbaar mi ngi jeexee buñ demee ba ker bi mu nekk tolloo ak jëmmam maanaam loolu lu lii da koy dëgëral ngir ne euh, ñoom ci seen bopp comme dañ daan yéexee tisbaar te daan sikk nekkul ci ne daanuñu ko yéexee ba waxtu yu jënd carrément dégg loolu moom moo tax waaye euh, kon lool euh, lool lool ba pare bu doon ne dañoo dem ba nga xam xamante ne keru mbir mu nekk dafa nekk ñaari yoon mbir mi lool boobaa doot ñu laaja fi mais waxtu wi ban waxtu la maanaam ngir ne dootul yanooti maanaam ñoom ñuy laaj waxtu wi wan waxtu la beneen bi ci des moom mooy ne yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam daf daan teel julli di di daf daan teel a julli tàkkusaan loolu tamit beneen mbir la boo xamante ne maanaam xadiis yëpp dañuy tegtale benn wax kese mooy ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam da daan julli tàkkusaan ci njaal benn waxtu wi daanu ko yéexe loolu moom la xadiis yëpp yi ñuy gis yëpp yooyu lañuy ñuy tegtale ci kaw loolu kon day daal di nekk loo xam ne day ràññeeku ci ñu mën cee dogu ci ne daa iman julli tàkkusaan li gën mooy nga teel kaa julli wuute nag tisbaar bi nga xamante ne bu yenn tàngoor yi maanaam bu tàngoor wi taree nga xaw koo yiixi waaye tàkkusaan moom ak lu mën ci xew da koy teel a julli loolu moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala lu mu indi xadiis yi nga xamante ne ñoom ñooy ci suñu buntu bi maanaam bu ñu xoolee ci jotaay bi wees lañ tàmbale woon di gis xadiis ba léegi ñu ngi gis xadiis yooyu nga xamante ne ñoom ñoo nekk suñu buntu bi di leeral jëmmi mbir moomu mooy ne yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam da daan teel a julli te loolu moom li nga xamante ne moom moo gën benen mbir bi nga xamantene mom lañ ci xamé mom moy tamit ne manam nit ki di askanale mbolam jëf ci yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te comme li nga xamantene mom la al imam Sufyan ibn Sa'id as-Sawri wa rahimahullahu ta'ala illa idha istata'ta alla tuharrika ra'saka illa bi dalilin fa'al bu fekente nak man nga nga bañ bu sa bopp bu ko tax yeungal lulul nga am foo ko tek teg bu leer bu dukkee ci alquranul karim wala ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam defal lool manam lool mom moy ne ñom sahaba yi radiyallahu anhum lool tamit lool lañ doon defere lu ñu def rek dañ naan ñii dañ gis yonente bi di def sallallahu alayhi wa sallam wala nii da lañ daan def ak yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu gis ne kon moom mooy référence bi te yoonu yàlla yëpp sallallahu alayhi wa sallam mooy buntu bi te moom ci jëmmi boppam mooy yoon bi loolu moom moo tax la def moo gën lu ñeneen def ak ñooñu ñu ñu mën a doon ak nombre bu ñu mën a doon dégg nga loolu kon dafa nekk loo xamante ne qaida la boo xam ne ñëpp dañ ko war a bàyyi hadith bi imam al-Bukhari fii la indi tamit rahimahullahu taala dina imam imam Muslim indi na numéro 623 imam an-Nasa'i indi na numéro 509 ak 510 imam Ahmad ibn Hanbal indi ko 13239 ak 13351 kon dañu gis ne imam al-Bukhari imam Muslim ak imam an-Nasa'i rek ñoom ñoo indi ci waa ashaabu kutubu sitta rahimahullahu al-jami' قال بالإسناد المتصل أول الكتاب إليه حدثنا آه، أبو اليمن ثم الحكم بن نافع رحمه الله تعالى أبو اليمن البهراني الحمصي من جن أدنى من جن أدنى سنتران تيشم أنا جنا وقد ينتمي صلى الله عليه وسلم جن أدنى دوسان فردوسم أنا جنا وقد ينتمي صلى الله عليه وآله وسلم كم نيجا حمد الله لنكم بسنة إمام البخاري مم وصلوا مم تمام رك مم لنك سرينم mu nak ñeneen ñi ci def ñëpp solo nañ ay haditham waye dafa am ku dox seen digënté ak ak ak ak ak mom manam mom moy seen sëriñu sëriñu ñi ci def la waye sëriñu imam al-Bukhari rek la rahmatullahi alayhi mo tax haditham mom ñum ñu ci kutubu sitta mu ne qaala nee na axbarana Shuayb te moom gisoon nañ ci moom mooy Shuayb ibn Dinar al-Qurashi al-Umawi rahimahullahu ta'ala dañ koy wax Shuayb ibn Abi Hamza tamit ngir ne Dinar moom Abu Hamza lañ koy wax mooy dàqantalam rahimahullah moom Abu Bishr mooy dàqantalam moom al-Qurashi wa al-Himsi mi ngi génn àdduna 162 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te hadith bi nga xam ne maanaam téereem bi daf ko solo ci سيدنا آه، آه، ما ما آه، نسخة لا يعني أبو اليمن أبو البخاري رحمه الله دق صلاة أبو اليمن ما حكم من الله في ذلك الشعب من شعب المدينة من شعب النبي حمزة ما مجرد كوتي عن الزهري ومحمد المسلم من شعب الزهري رحمه الله تعالى gane àdduna cinquantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna cent vingt-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa imaamu waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam wala boog sax ñu ne moom mooy imaamu waa àdduna bi doon na ñi nga xam ne ñoom ñooy fuqahaa as-sab'a yi ci waa borom xam-xamu Madina yu yi juróom-ñaar yu mag ñooñu ci jamonoy sahaaba yi rahmatullahi ala مبوك كتاب ايو داوي رحمه الله مولا قال لنا حدثني نقلنا من انس بن مالك رضي الله تعالى عن صحابه النبي صلى الله عليه وسلم بصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال لنا كان نكون رسول الله إنه يالني صلى الله عليه وسلم يصلي ذا جل العصر تكسر والشمس فيك جنب مرتفعة من أجي يجدك حية بأجدنده ما نام يتكتلك ما نام وقت feddali wax bi ci ne daf ko daan fekk maanaam jamono ji ko doon def day daan tàkk tàngoor woo xamante di loon tàkk di leer nañ mu leer na ni ñu ngi ci digg bëccëg loolu moom mooy li nga xamante ne jamono jooju la daan julli tàkkusaan li lépp kon di dëgëral li nga xamante ne moom moo tax imam al bukhari rahimahullahu taala indi xadiis yi yëpp ba pare na ko buntu bi di leeral ne du waxtu tàkkusaan mi ngi tàmbalee ci keroog maanaam mbir mu nekk bu tollee ci euh, ci Euh, euh, maanaam ker gu nekk toll toll ci euh, tolloog mbir mi ci boppam buñ ko génnewee wala waa buñ ko génnewee keroog keroog jéngu jant bi mu ne mu ne mu ne muy muy leeral sax ne maanaam lii gën a leeral loola mooy fa yas na bu dana doon na dem az-zaahibu bu aji dem ji ilal awaali ca al awaali muy koñ yi mooy mooy koñ ya nekk ca catu madinatul munawwara maanaam comme ni ñuy wax banlieue bi rek voilà mooy al awaali ca kon madina ya bayat yi mu dikkee leen wa samsu fekk jant bi murtafi'atun di aji yëkkatiku mu ne wa ba'dul awaali te lenn ci al awaali foofu minal madina ca madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam ala arbaati am yaalin mi ngi tolloon ñeenti am maayil aw nax wax wala wala aw nax wi wala boog lu ko nuru maanaam mooy lu ko jege mooy à peu loolu lay tolloon mooy quatre maayil te benn maanaam dix dix kilomètres no waaw quinze quinze mooy dix maayil maanaam maanaam un virgule cinq Euh, kilomètres moins, voilà un mile un kilomètres donc par quatre six kilomètres voilà donc on six kilomètres kon la ngay six kilomètres buñ waxtu Euh, euh, jant bi dégg nga ñu ngi continuer di tàkk te lool day tegtale ne maanaam ndax dina doon waxtoog lu teg sax kay waaw lool moom waxtoog lu teg la sax kay six kilomètres moom ah waaw dégg nga kon loolu bi nga gis ne kon loolu day tegtale ne euh, maanaam yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dakaraan téere julli waaye bu ñu xoolee xadiis bi jiitu bi ñu bi ñu wax nii moy di len gis ne ñom dañ leen daan dem fekk leen fofa ñom ñuy doogu julli takku takkusaan manam loolu tamit day teeral day tekkale me yenen ci sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mom daf ko daan téla julli euh hadith bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala dina ko indiwaat hadith numéro cinq cent cinquante ak hadith numéro sept mille trois imam Muslim indi na ko indi na ko six cent yoon imaamu Maalik indi na ko xadis numéro onze imam Abu Dawud indi na ko xadis numéro quatre cent quatre imam euh, euh, An-Nasaa'i dina indi na ko xadis numéro cinq cent six cinq cent sept ak cinq cent huit imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro six cent quatre vingt imam Ahmad ibn Hanbal moom lu bari la ko indi kon nañ gis ne waa saabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ xadis bi ba des imam At-Tirmidhi rahimahullahu al-jamii' ما قال بالإسناد المتصل في أول الكتاب لي حدثنا عبد الله بن يوسف تمام في رحمه الله تعالى أبو محمد الكلاعي المصري محمد بن دمشق موي تسالم رحمه الله تعالى ويوا مصر رحمه الله عبد الله بن يوسف في من جيل عدنا دوسات في أنا كنا وقعد عينا صلى الله عليه وآله وسلم إمام البخاري رحمه الله صلى الله عليه وسلم ونحكي سرين وعيه waa asxaabu kutubu sitta ku mel ni imam Abu Dawud solo na ay ñetti xadis ci ay xadisam imaamu at-Tirmidhi solo na benn xadis ci xadisam imam an-Nasa'i solo na fukki xadis ak ñett ci ay xadisam kon imaamu Muslim ak imaam Ibn Maaja ñoom ñoo solowul ay xadisam rahimallahu al-jamii' moom mu ne qaala axbarana Maalik ngir jàng ñu doon jàng ci kanam imaam Maalik gis nañ ci léegi mooy ibn Anas ibn Anas ibn Maalik an ibn Shihab te moom mooy Muhammad ibn Muslim az-Zuhri rahimahullah an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala te moom mooy ibn Nadr ibn Zamzam al-Ansari radiyallahu ta'ala annahu qaala nee na kunna nekkoon na nusalli di julli al-asra takkusaan summa topp yazhabu mu dem az-zaahibu aji dem minnaa ci ñun ilaa Quba in ba ca Quba maanaam dangay gis ne riwaaye yi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk maanaam lu ëpp ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo solo xadiis bi dañuy wax ilal awaali maanaam ci awaali la ñuy wax waaye imaamu Maalik moom dañ ko solo ci moom moom mu ne ilaa Quba mu dem ci Quba bu ñu xoolee euh, gisoon nañu bi muy wax ilaa bani amrin euh, awfin moom tamit imam Maalik moo ko soloo xadis boobu maanaam mooy banu amr ibn awfin te ñoom mooy waa Quba maanaam moom mooy bi mu ko soloo ci Ishaq euh, ibn Abi Talha moom Ishaq ibn Abdullah Abi Talha moom mu soloo ko ci Anas sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu taala anhu maanaam loo loolu nag moom moo tax ñu bëri ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim jàpp ne kon imaamu Malik moom moo gëndale wax bi waaye al imaam Ibn Abi Zi'b bu tamit soloo naa jëmmi xadiis bi ci al imaam az-Zuhri rahimahullahu taala ci Quba la wax kon ñu gis ne ki nga xam ne kon moom la wax ñooñu moom moo ci dugal baatu Quba moom mooy imam az-Zuhri ci mu boppam maanaam loolu nag maanaam waaye Quba mooy ban waa banu Amr ibn Awf ñoom ñoo fa nekkoon te loolu moom mooy ci biir Madina ndax Quba ci benn partie la ci awaali yi ci ci banlieue Madina waaye maanaam loolu kon euh, moom moo tax euh, kon euh, loolu kon moom maanaam Quba moom nag mooy jàkk ji nga xamante ne moom la Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëkk tabax foofu ca Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam ba alquran tudd ko naan la masjidun ussisa ala taqwa fi awwali yawmin ahaqqu an an taquuma fiihi maanaam gin ni jakk ji nga xamantene wala juma ji nga xam mo moom la tabax te ñu tabax ko ci ragal yalla ci njaal deelu bës bi manam moy bi mu dugg see medina rek mo la haqqo an taquuma fiihi foofoo gën yey ci nga taxaw dégg mm. kon ah, mu ne kon nak fa ci ñu manam bu daal di koy ñu da ñu kon mu ne kon ñom bu ñu jullee ak yenente bi mm. sallallahu alayhi wasallam gannaaw ga kay dem dara dem ba fofa fa yatihim mu fekk leen fa mu dikkee leen wa shamsu fekk jant bi ba tey murtafi'a nekk aji yëkkati ko loolu kon xadis boobu moom lañ gisoon ci suñu euh, xadis bi weesu taxrij boobu taxrijam mooy taxriju xadis bi weesu yëpp imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ci di leeral ne jàng maanaam danga war di teel a julli tàkkusaan lool mooy li gën a sàmm te lool moom moo dëppoo ak li nga xamante ne moom la sunna yonent bi sallallahu alayhi wa alihi saxaloon waaye tamit terewul ne man nañoo julli tàkkusaan feek ñi ngi ci biir muxtaar bi te loolu moo xam ci jàkka la wala du ci jàkka ci mbooloo la wala yow kenn nga léegi nak imam al-Bukhari rahimahullahu taala ginnaaw ba mu leralé lola ak gënël yi nekk ci waxtu tàkkusaan kañ la ak kañ lay tambalé ak manam ngir yëkkati leunt leunt ci wuté yi nga xamantene mom la borom xam-xam yi wuté rahmatullahi alayhi ci bir lool mu daari indi buntu bo xamantene day tekkal day day tegtale ne manam ne boo ko yéexee julli manam man na la am lula dal ne moy lan moy waxtu wi faat la te lola musibo bu rëy a te loolu nag moo lay leeral fii mu ne baabun bés mu man fatat ful asr baabun buntu ngi nii buntu bi li muy leeral mooy ismu bàkkaaru man ka nga xamante ne faatatu faat na ko al asru jullit tàkkusaan maanaam moom mooy garaaw gi nga xamante ne moom la euh, garaaw mooy yéexi gi nga xamante ne moom la ñu yéexee tàkkusaan ba waxtu wi nga xamante ne waxtu wi dagal ñu julli ko daal di weesu teqantal yi nga xamantene mom la borom xam-xam yi teqantale won rahmatullahi alayhim ci waxtu wo wara kañ la yam gisul nañ ko ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna kon mu ne mu ne qala bil isnad al muttasil fi wal kitab la hadathana abdullah ibn yusuf mom moy mooy at fi gisul nañ ko legi gen 218 cent ginnaw huitième année ga dayen sallallahu alayhi wa sallam akhbarana Malik moy imam daaru hijra comme ni nga xamne ne noonu ko gisoon an Naafi moy ibn Jurjus di mawla Abdullah ibn Umar ابن الخطاب رضي الله تعالى عن الجميع من من مصدق دمك ابو عبد الله المدني جن عبد الصاتيد انا جن وقد ينتبه صلى الله عليه واله وسلم تصانم نكون في نكون بربر ما نمشي و وما منك بربر و و و مغربي دونك امنا تصانم ولا يمنون على كل حال kon moom muy moom mooy imam bu màgg boobu nga xamante ne moom mu ne an ibnu omar mu jël seydna abdullahi ibnu omar ibnu alxataab ibnu nufayl ibnu abdul uzza ibnu rayah ibnu abdullah ibnu qurt ibnu razah ibnu abi ibnu kaab ibnu luway maanaam muy muy mbokk ak yent bi sallallahu alayhi wa sallam ci waa banu kaab Euh, muy abu abdurrahman euh, al makki summa al madani rahimahullah radiyallahu taala anhu euh, mi ngi génn àdduna soixante-treizième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama xadiisam maanaam muy li ëpp bu bokk ñu ëpp ci li ñu solo aji hadis ci yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nga xamante ne musnadam deux mille six cent trente hadis la yoo xamante ne muttafaqun alayhi cent soixante huit hadis la imam al-Bukhari wéetu ci quatre vingt et un hadis imam Muslim wéetu ci trente et un hadis hadis sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu muy asar yi bu màgg boobu nga xam ne dafa jeexoon tàkk ci yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Euh, sanad bi càllale gi maanaam ci rubaa'iyaat yi la bokk maanaam bu ñu xoolee ñu ngi gis ñu bëri ci ñu gis euh, ci suñu jotaay bii nii ci rubaa'iyaat yi la bokk waaye bokk na ci li mu ràññeekoo ko tamit mooy ne xadis bi mu maanaam càllale gi moom la imam al-Bukhari rahimahullahu taala wax ne moom mooy asahul asanid maanaam mooy càllale gi nga xamante ne moom mooy bi gën a dëgër càllale yi mu ne anna rasulallahi ne ko ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa ci càllale gi gën a dëgër ci càllale la soloowe xadis bi mu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne allazi ki nga xam ne tene ta fuutuhu da koo faat salaatul asri julli takkusaan fakka annama mu ne dafa mel ni ki nga xamante ne ko dafa mel ni ko moom wutira dañu fukk dañu fukk wala dañu rikki ci ahlahu ak ñoñom wa maalahu maanaam njabootam wa maalahu ak alalam lii mooy lan mooy ne tey bu fekkente ne da nga julli hadith bi dañ ciy jàngee ne ki nga xamante ne moom la euh, benn lañ ciy jàngee mooy ne waxtu tàkkusaan ak comme waxtu yëpp mën nañoo faat maanaam mooy waxtu wi dem ba nga xamante ne dafa génn waxtu wi ci kaw ci kaw loolu kon lenn lu ci nekk dafa am waxtoom comme ni ko alquran waxee inna salaata kaanat alal mu'minina kitaabam mawquta naka julli te dafa nekk loo xamante ne lu gàllu ci loo jullit ñi la mu nekk farata koo xamante ne dañ koo wutal ay waxtu maanaam mooy waxtu yoo xamante ne dañoo leer ñu dëxale ko loolu moom mooy benn ñaareel bi ci def moom mooy tàkkusaan bi fii la yenente bi sallallahu alayhi wasallam tuddee dune julli tàkkusaan la tudd loolu day tegtale màggaayu julli tàkkusaan ci kaw yeneen julli yi comme li nga xamante ne insha allahu taala dërëb imam al-Bukhari rahimahullahu taala dana note buntu boo xamante ne baabu fadli salaatul maanaam euh, di leeral ngëneelu maanaam julli euh, euh, takkusaan beneen bi ci des moom mooy fii su hadith bi dañ ci xamee ne maanaam baatu wutira li muy tekki moom mooy koo xam ko dañ ko dañ ko nangu ci moom ci loo xamante ne ak mbetteel la loolu mooy lan maanaam exemple bi mooy tey masalan nga daal di ñëw bàyyi sa waa kër yëpp nga bàyyi leen ci sa nga am sa alal yëpp nga def ko ci kër mboolem la nga amoon ci banque bi nga génne ko def ko teg teg ko ci kër ga ak ña nga amoon lépp rek sa bagage lépp nga bàyyi ko ci kër ga daal ne maa ngi dem te ñëw nga daal di dem dellu ci fekk kër ga gisatoo def gisatoo dara gisatoo waa kër gi gisatoo alal gisatoo dara kër gi place bi rek nga gis mais gisatoo sax jëmmi kër gi loolu nga ñëw euh, nit kooku noonu ni muy jaaxle maanaam waxul ne euh, xam nga ku doon ne par xam nga ni dee nañ wala xam nga ni musiba dal na leen wala yooyu ça au moins di nga di di nga di nga préparer maanaam sax psychologique bi dina am mais di di di nga ko mesurer mais xamuloo ci lu ñu ne nga dem di leen maanaam te dañ leen a nangu ci mbetteel mooy mu ne julli tàkkusaan ku mu dal lu lu mel noonu maanaam gravité wu lu mel la la maanaam boo xamoon loolu ni mu garawee ak ni mu koy bañale sa bopp noonu ngay bañale sa bopp tàkkusaan dem romb te julliwuloo maanaam loolu lay loolu lay leeral fii manam moy waxtu wi génn te julliwuloo wuloko ngir ne li nga nek noonu mo ëpp doole aduna ak li ci bir lan la ñu wax sax maanaam loolu moom la yenen di wax fi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam benen hadith bi insha allah taala bi ñu ci ñëw manam hadith bi ak xadis bi ci tegu boobu moom la mom la ñu nettali woon fële def soppe ci la waaji dafee tout tout la arrêté de d'exagérer ki ci def ne ko ah oui ça c'est trop ça keneen ki ne ah contradictoire à la wen leen waa da ngeen fi dégg mu wax leen sama waxu bopp wala yent bi laa leen wax ni moo wax sallallahu alayhi wasallam dégg nga suñu xadis bii la xadis bii la woon dégg nga mu ne euh, ah, xadis bi euh, imaamu Malik rahimahullahu taala buñ ko solowee xadis numéro vingt et un imam al-Bukhari fii la ko solo imam Muslim solo na ko xadis numéro six cent vingt six indi na ko ñaari yoon imam at-Tirmidhi imam euh, Abu Dawud indi na ko xadis numéro quatre cent quatorze imam at-Tirmidhi indi na ko xadis numéro cent soixante quinze imam an-Nasa'i indi na ko quatre cent soixante dix huit quatre cent soixante dix neuf quatre cent quatre vingt cinq cent douze ñaari yoon hmm. imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro six cent quatre vingt cinq imam ahmad ibn hanbal lu bari la ko indi bi mi ngi ci kutubu sitta waa xam kutubu sitta yëpp solo nañ ko rahimahullahu aljamii baabu man taraka al asr baabu man ki nga xam ne ne taraka dafa bàyyi al asr jullit tàkkusaan kon fële moom mooy ki nga xam ne jullit tàkkusaan da ko rëcc maanaam kii nag moom daf koo bax maanaam ko moo ko tey koku ñaari yooyu mom mo wutale buntu bi wessu ak buntu bi ñu ne manam lool mom la imam al-Bukhari di leeral fii rahimahullahu taala mune ne mu ne bil isnad al muttasil bi awal kitab la ya hadathana muslim ibn ibrahim gisoon nañ ko moy al asadi al asdi rahimahullahu taala moy abu amr al farahidi di wa basara rahimahullahu taala mom imaam al Buxaari ak imaam Abu Daawud ñoom ñoo solo ci moom mu nekk seen eh, mu mu mu maanaam ñoom ñoo solo ci moom te moom mooy sëriñ bi gën a mag ci sëriñu imaam Abu Daawud rahimahullahu taala am na ñeneen ñoo xamante ne solo nañ maanaam ñeneen ñu gis mooy waa ashaabu kutubu sitta solo nañ ay xadiisam waaye seen sëriñu sëriñ la ku mel bokk na tamit ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo solo ci moom mu Yahya ibn Ma'in ak Nasr ibn Ali ak Muhammad ibn Yahya az-Zuhali ak Zayd ibn Axzam ak ñeneen ñu mel ni ñoom rahimahullahu jamii moom mooy ki nga xamante ne moom la ñu waxoon ne moom comme moom moo ko nettali boppam jàngee na ci juróom ñett fukki sëriñ te musul génn génn dëkkam maanaam Basra yàlla tamit loolu la ko wërsëgal moom maanaam daanaka dañuy gis ne xewul gi imam Malik am danaka mom la am rahimahullahu taala min ngi génn am na deux cent vingt deuxième année ginnaaw bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko min ko gis xadiis ni ñu ngi ci kutubu sita mun qala qaala Hisham te moom mooy Hisham ibn Sumbur ad-Dastawa'i rahimahullahu taala muy Abu Bakar al-Basri rahimahullahu moom mi ngi gane àdduna soixante-sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna cent cinquante-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di imam bu baax te mag ay xadiisam ñu ngi ci kutubu sitta qaala mu ne haddasanaa Yahya ibn Abi Kathir te moom mooy borom la moom mooy mooy moo Yaxya ibn Abi Kathir rahimahullahu taala génnaat na cent vingt-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay xadiisam ñu ngi ci kutubu sitta mu nekk ci bokk ci siqaatu taabi'iin rahmatullahi ala Abi Qula al Abi Qilaba te moom rahimahullahu taala mooy Abdullah ibn Zayd ibn Amr abu qilaaba rahimahullahu taala di taabii bu mag génn àdduna cent quatrième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bu bëri woon tamit loo xamante ne moom mooy ay ay marasil la al imam ibn Hibbaan daan ne min min ubbaadi ahlil basra wa zuhaadihim maanaam mu bokk ci ñi nga xamante ne ñooy jaamukat yàlla yu mag ci waa basara bokk tamit ci ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi dëdd àdduna ci mu nekk koo xamante ne euh, dafa bëri nag ay ay ay ay ay marasil waaye maanaam waaye tamit waaye daal imam la bu mag rahimahullahu taala mu ne an abil malih te moom mooy moom moom abul malih la gën a siiwee mais turam amir la amir ibnu usamata al-huzali loolu moo gën a siiw ci liñ wax ci turam waaye nag dàkkantalam moom daa iman moom lañ koy woowee moom la gën a siiwee rahimahullahu taala mi ngi génn àdduna quatre-vingt-dix-huitième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu استثقل نك من دندم مم جوا الله رحمه الله تعالى مم من قال نينا كنا نكون مع ابو ريدة كما موي آه، سيدنا ابو ريدة بن حسيب ابن عبد الله بن حارث الاسلمي رضي الله تعالى عنه داخل نكون ابو عبد الله ولا دنك ابو سهل دنك و آه، آه، ابو الحصيب رحمه رضي الله تعالى عنه هو دوا Euh, mu ngi génn àdduna soixante euh, euh, dañuy wax ne mi ngi génn mi ngi génn àdduna soixante deuxième année ca ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama am nañu ne ci Marw la génne àdduna ndax dafa demoon tukki maanaam dafa demoon xare waaye am nañu ne ca Xuraasaan foofu la génne àdduna ca soixante deuxième année te mooy saxaaba bi mujjee génne àdduna ci gox boobu ci moom moom mujjee génne àdduna Euh, euh, rahimahullah te côté Asie orientale rahimahullahu taala moom euh, ay maanaam musnadam cent soixante-quatre xadiis la hmm. moom lañ ko solo jële ci Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hmm. imam al-Bukhari ñetti xadiis la solo ci moom radiyallahu taala anhu wa ardaahu wa anna bihi moom mu ne kon Abul Malih rahimahullah nee na kun naa nekkoon nañ maa Burayda mufid na Burayda Xusayb al-Aslami radiyallahu ta'ala ci aw xare nekkoon fii yawmin ci boo xam ne bii ghaymin boroom miir la maanaam mu nekk kon benn ci toolu lañ nekk mooy kenn amul ah, maanaam mooy de amul excuse boo naan ah way man ah, non c'est xam nga instant bi liggéey bi muy liggéey moo tax wala dama xaw wala dañ dama nekk ci nangam ak nangam loolu moom amul parce que toolu xare la beneen bi ci def mooy fii yow min bis la boo xam ne bii xëy min dafa ànd ak euh, ay niir maanaam fa qaala mu ne bakkiroo teel leen julli waaye na ngeen gaawtu waaye na ngeen teel a julli mm. ah, ah, ci njaal benn waxtu yi mooy bi salaatal asri ci julli takkusaan na ngeen ko teel a julli gaawtu leen ngeen julli ko ndax fa inna li wér boor mooy ne annabiya yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na man képp koo xam ne taraka bàyyi na salaatal asri julli takkusaan faqat dëgg Allah faqat dëgg-dëgg xabita yàqu na amalu bu jëfam mm. maanaam ah, dafa bokk ci yi nga xamante ne ñoom ñooy yàq mooy bàyyi julli tàkkusaan bu waxtu yu romb borom ko xam ne nag rahmatullah na am wuute nañ ci ndax daf ci am ñoo xamante ne dañ koo firée ne ku ko bàyyi daa iman lay tekki maanaam pour daa iman ngay bàyyi di julli tàkkusaan mais fii ni mu ko waxee nii lii nii li euh, euh, euh, am na tamit ñoo xamante ne dañu maanaam maanaam bu ñu xoolee di xadiis bi maanaam Seydina Burayda radiyallahu anhu ni mu ko waxee ak circonstance yi mu ko waxee moo lay wax ne du ki ko bàyyi daa iman mm. parce que su doon ki ko bàyyi daa iman la du wax ne na ngeen ko gaaw ku julli gaaw parce que yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nee na ku bàyyi julli tàkkusaan euh, jëfam yi maanaam kon du nekk loolu am na tamit ñu ko firée ne ca bis bi lay doon maanaam bis bi nga ko bàyyee te bis boobu la sa jëf yooyu di yàqu loolu tamit bokk na ci li koy mbir mi mooy mooy al al am mooy al am yutraku ala umumihi hatta yarda dalil sax sax maanaam ne maanaam bi dafa dafa général mm-hmm. te loolu dañ koy bàyyi kon ci généralité am ba am luy wane ni lii dafa particulier mm-hmm. mais fi mu toll généralité bi mooy lan mooy julli takkusaan rek la wax ñett beneen mbir bi nga xamante ne moom la faral di wax moom mooy ku ko ba pare jàpp bàyyi ko dagal na maanaam loolu yëpp yàqu ndax li ñu xam mooy yàqu jëf mooy waaye loolu tamit mbir mi dañuy xam ne dañoo noonu ndax lii wane loolu tamit du loolu moom mooy ne parce que loolu yëpp dañuy bañ ñoom maanaam borom xam yi di wax la ñoom alhamdulilah Abdul Barr ak ñeneen rahmatullah alayhi ñuy bañ mooy dugg ci euh, ci ci ci idée wu xawaar ji ah, ah. mais fii euh, wax ji dafa leer naññ te loolu day tegtale ne julli tàkkusaan dafa am doole li tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam tudd julli tàkkusaan ci hadith bi ak hadith sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu bi ñu weesu mooy wane doole bu mag bi julli tàkkusaan am mm. ci kaw mboolem yeneen waxtu julli yi. maanaam mm. loolu moo tax mu beral tàkkusaan tur wax ko noonu te lii xadis bii day tegtale loola maanaam euh, te beneen bi ci des moom mooy ne euh, euh, su doon ne su doon ne mbir mi noonu la demee kon du leen wax ne leen gaawtu leen nañ gaaw gaawtu julli ndax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne képp ku julli tàkkusaan képp ku bàyyi julli tàkkusaan kon sa jëf yëpp yàqu na su doon ne da ngaa jàpp ne ku jàpp ne dagan naa bàyyi rek la mm. maanaam ku parce que ki jàpp ne dagal naa bàyyi sax ku yéefar la fa kon kon moom maanaam moom bokku ci wax bi maanaam kon bu boobaat dañuy xam ne li ràññeeku ci firi ko mooy ne ci bàyyi julli tàkkusaan ba mu juddoo ba léegi compteuram rëmb da nekk zéro maanaam tey boo toogee nga dund cent ans yoo xamante ne yaa ngi tey jaamu yàlla lu ne nga dem ko ci jaamu yàlla saraxe bu ne saraxe nga ko at bu ne yi nga màkk def nga lu ne nga dem ba centième année bi nga daal di toog waxtu tàkkusaan romb julli wuloo ko mboolem li nga mosoon def bi nga juddoo ba bis booba lépp yàqu na maanaam julli tàkkusaan barem bi dafa diis hmm. euh, boobu dafa am doole il faut faire très attention moo tax léeg li ñuy gis te lu mat a bàyyi xel la yi ñuy gis faral di di ñi di xew euh, surtout xew yi nga xamante ne dañ koy tuddee xewu diine nga xamante ne balaa xew bi di nekk ci digg dëndëm mooy jamonoy tàkkusaan maanaam nga xam ne gars yi dañuy toog waxtu wi romb ba jant bi dugg ba gars kii ñu nekk fay way di jàng di waxtaan di kii wala ku jox ku ko wax ba pare jox sa morom mu wax et cetera ñu jàpp ne ñu ngi ci dara nekkuñu ci dara parce que tout simplement seen mboolem jëf yi yàqu na depuis ñu boobu mboolem lu ñu ko te kii koo wax mooy ki nga xamante ne lu mu wax noonu mm. sallallahu alayhi wa sallam as amin mooy ki nga xamante ne mooy kii dëgg ki nga xam ne waxkatu dëgg la te dañ koy dëggal mooy ki ñu wóolu yàlla wóolu ko yeneen ki wóolu ko malaaka yi wóolu ko mboolem jullit ñi wóolu ko sallallahu alayhi wa wa sallam loolu maanaam day wane gravité bi nekk loolu moo tax dafa bokk ci yàq jëf Euh, bokk na ci alquran daf ko wax comme naan wa atiu allah wa atiu rasula wala tubtilu amalakum na ngeen topp yàlla topp yeneen di sangam te bu leen yàq seen hmm. bokk na ci li yàq jëf moom mooy nga maanaam nga nga nga ni carrément maa bañ mooy naa yàlla mooy naa yeneen bi hmm. sallallahu alayhi bokk na ci li yàq jëf loolu la aay boobu la koy tegte hmm. bokk na ci li tegte la wa man yakfur bil imaani faqad habita képp ku weddi yàlla gannaaw bu nga gëmee kooku kooku tamit sa jëfam yàqu la nit ku mel noonu tamit jëfam day yàqu mooy ku nekkul jullit ba yàgg nit di def lu nekk li sax jékki-jékki daal ni tubbi naa loolu day yàq jëf beneen bi ci def mooy alxuraan bi naan laa tubtilu sadaqaatikum bil manni wal adaa bu leen yàq seen sarax yi ci maanaam ñaax nit ñi maanaam sarax ba pare naan tey xam ngeen ni moom bu dul woon man moos nangam nangam wala boog di sarax ba pare wal adaa mooy wax ju ñaaw maanaam waaye moo jëlal sa am am jëlal mais tey nga góorgóorlu nag ah xeetu wax yooyu mm-hmm. loolu ah day day yàq day yàq li nga saraxat mm-hmm. beneen bi ci def moom mooy lu dama nekk ngistal mm-hmm. ak ñu mel noonu yooyu yëpp dañuy yàq jëf bokk na ci am na yoo ne nag dañuy yàq jëf bi instantanément maanaam comme saraxe boobu loolu du yàq jëf yëpp mais jëf jii lay yàq euh, bokk li yàq jëf jii léegi nii tamit bokk na ci moom mooy Euh, comme comme euh, moom mooy lu wax ci saraxe bi waaye tamit comme ngistal ngistal day yàq jëf ji nga jëf léegi nii waaw moom da ko yàq yéene bu sellul ci jëf ji day yàq jëf ji waaye julli tàkkusaan bi weddi yàlla euh, wa wa di ak bi ak koo xamante ne maanaam mboolem shirk yi boole bokkaale yàlla yu mag yi bokkaale mboolem lu dugg ci cadre bokkaale dayak yàq definitif définitivement mbolam jëf yi nga xamantene mo moom nga mu ko jëf da ko bokkal bokkaale voilà ndax yàlla du jéggale bokkaale lepp la yàq benen bi ci des moom mooy euh, comme te ngay ngay ngay ngay na ci ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ne da ngay ngay ngay ngay da ngay ngay ngay ak ngay ngay sallallahu alayhi wasallam wala ngay ngay alcorane loolu loolu doo ko yàq mm-hmm. bokk na ci liy yàq jëf yi tamit moom mooy tey masalan nit ki ne euh, maanaam nit ki tudd Abdullah mu naan ko Abdullah bi wala nit ki tudd Abdurrahman Abdullah mooy mooy foofu caaxaan Abdul ah, ki nit ki tudd Abdul Abdul ah, Abdurrahman mu naan ko Abdu Shaytaan par exemple yu mel noonu yooyu moom. Euh, même nit ki bu foowee même nit bu Cheikh Tidiane li mu wax radiyallahu anhu mu ne même nit ki bu ko tayul même bu fekkente ne jublu wu ci woon loolu sax loolu day yàq jëfam day yàq jëfam yi carrément voilà ba euh, mais beneen bi ci te te par contre beneen bi du yàq jëf yi mooy euh, comme comme comme comme comme ku tudd Muhammad ñu naan ko Muha ki nga xamante ne moom mooy tudd Babacar ñu naan ko Bab ki nga xamante ne moom. par exemple yooyu ku do Lamine ñoko naan ko lem lemzo wala yooyu mel noonu euh, Omar ñu um um om wala um xeetu yooyu lolu yaqul jëf nit carrément mais lolu mbir lu mo xamante ne seytaane lu koy utiliser pour dindi barké bi nek ci tour nit ñi lolu seytaane da koy utiliser pour dindi barké bi nek ci tour nit ñi ak njariñ gi mu leen mëna a indil ndax nit ki la fekk ñu ko wowe tour bobu non té noonu la tudd lool day am tout temps effet yu muy def ci mom léegi loolu nak barke bobu lañu bëgg le seytaane bëgg dindi motax tout temps mboolem tour yu baxi yi seytaane fexe na ba dugal ci xelu nit ñi ne nañ ko dag nañ ko waxee neneen yaq ko ku muus mooy ki nga xamantene day bañ ne bu kenn wañu turam bu kenn yaq turam bu kenn damm turam voilà dégg euh hadith bi imam al-Bukhari dina ko indiwaat xadis numéro cinq cent quatre-vingt-quatorze imam euh, an-Nasa'i dina ko xadis numéro quatre cent soixante-quatorze imam Ibn Maaja dina ko xadis numéro six cent quatre-vingt-quatorze imam Ahmad dina ko xadis numéro vingt-deux mille neuf cent cinquante-sept vingt-deux mille neuf cent cinquante-neuf vingt-trois mille vingt-six vingt-trois mille quarante-cinq vingt-trois mille quarante-huit vingt-trois mille cinquante-cinq léegi gis na kon waa asxaabu kutubu sitta imam Bukhari imam an-Nasa'i imam Ibn Maaja ñoo ko indi amma imam Muslim imam Abu Dawud ak imam Tirmidhi ñoom indi wuñu ko rahimallahu aljamii wallahu taala alam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi